asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen naa nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen jaajëfal si seetaan bi ñu naan seetaan Gambian Talents Promotion di leen dalalaat si beneen ah, Gambian Talents Forum ma di leen ko indil ay rek ba fii si Gambian Talents TV ah, forum bi nag muy ah, kay bi nga xamantene ni ku nekkal fi indi waxtan ak yow te olof ñay dafa ne ñaka waxtan moy indi réeroo te ñun nak dañuy bañ bañ suñu biir motax dañuy indi ku nekk ñew tok fi waxtan ak yow ah, laaj la lu bari laaj la lo xamantene ni ngi dem ci si ñun ñu la ko laaj dinañ si jàngee yow ci sa di dinañ si jàngee toppale ñu tay nak fi ci Gambian Talents Promotion ñu indi leen gan bo xamantene ni ñepp xamé ko ñepp rañé ko si One pack One pack nak ñu fi àndal tey nar nar waxtaan ak moom ah, du ma def dara lu jox ko may bi mu nuyoog yéen one pack salaamaaleykum. yes eh, salaamaaleykum Gambia and the whole diaspora eh, Malena, leen ay nuyu seen tur ak seen sant ñi ma xam ñi ma xamut xam ma laa wax nii mooy loolu daal wish you the best day in the day. ah one pack dalal la jàmm si Gambia Talent Forum bi. One uh, Pac am na sa benn interview boo wax ne boo def ak ñun Sidi Koto, ak Youssoufa mm-hmm. uh, yaa ngi ko mentionnoon ne yow amuloo benn family su passé sa yaay rek loolu naka la mun a possible eh, li ma mention aw ma Ben family after all my after my mother mooy like um. suma ne aw ma family after my mother is suma maam yaay rek a dee feel suma pain my constraints, get me she is the only one there for me. She is the only one who will be representing Mabon Maba. So mom like I qualify to be called a family. In addition to that ak ñoo xam feel nañ suma pain or dinañ feel suma pain but I don't believe in biological relationship as a family. li ma gëm luy family moy you get me kuy feel suma pain ak ku may xool si bët wax ma loolu amuma ko fenn fu dul si suma yaay that's the deal. Ah, ah, nga fi something like pains ay jafe-jafe yooyu jànkuwanteel ñu bëggoon a xam yow yan façon pains nga expérience sa life. man pain yi ma expérience suma life dafa fa bari booy suñ ko waree toog wax ko fii booy duñ duñ génn fii bilaahi siis yaa ngi man naa ba benn ah, am am. are born in, in mean, are born in happiness, but I grew up in sadness. You get me? Amakumai Tawa, like being there for me for God. Amakumai Amakumai regular like one pagla buga regular. Only one woman who who is there for me, which is my mother. Tenyano mayala mu de yele manjeri. Because mom like I got deserve painting, I want to pain you, you tell me they are too much. Yeah. Because you can see my face, it's all scarred and all that. And that do? Yeah, you understand? Every scar have a story. You get me? No ye book and then she pain Devastated by the society. Devastated by the society, isolated by my by my own community even. So my family say I'm not you hate, you in fact, some families, there is no one I can be. And I mean, Feeling a constraint, Manahara Makolni or Wahaki and I argue. Anything about one pack is about one pack and his mother. Done. And recently, i am nañu ma force mbeera bi mooy ñan mooy Walter you know what I mean Walter Tough Garden you get me they, mom was doing very hard and Munge tried very seriously to see me being someone in, in my own life, being legit and being someone. And he's the first guy even who invested in my music. So boy bobu dal dama ko mag yaa ngi woon te am naa mag mag yoo xam ko ba alal yaa ngi woon waaye amuñ xol boobu demut fenn fii la ma fekkee si mbeeda bi déglu suma musique ut ma ba ma gis indi ma boppam selta sax moo ma ko jox right now waaw ah, loolu am na solo trop ah, One Pac si suñ gëstu ah, gisoon neen la yow yaa ngi nekkoon prison ñu bëggoon a xam yow lan mooy prison ah dara du dee yóbbu nit prison during the dictator time and whatsoever ñëpp xam nañ prison du pour baax ak lu baax du yóbbu nit prison waaw I'm an ex-con that will be the first and the last ah, ah, ah, life si prison bi naka la meloon life si biir prison baaxut sa xaj sa doo ko ko éenee su sa éeneewu ma ko prison ndig lu sooy puub dañ laay dañ laay dañ laay gunge sooy kama dañ laay gunge ay xale yu ndaw ay ñoo xam ne sax jànguñ grade six products lañ ñu ngi laay disrespect anyway prison daal amul amul dara lu lu there is no honor in prison you will be disrespected you will be maltreated you will be treated like an animal muus buy muus sax doo ko gis prison sakaatuma xaj so loolu automatically baaxul so my, my, my advice to the, to the, to the youth and, and to the undefiled brain and the in, innocent, yeah? Please, gainde gainde yabi. Huh? Jaru kofen. Gainde idenen, nyene yangzi prison bi. The prisons, you get me? Lord, I'm, I'm Kosuma Bena song. You get me? While when you're sitting behind bars, the ships are sailing. You will not believe that this is a fairy tale, but it's so scary and crazy. You get me? Because season after season, they lock the youths in a prison without no definite reason. Anytime inside the youths, they're missing. The situation getting crazy. I mean, I know what they want to come deal with. Because they don't want to come and reason. If you commit a crime in a prison, officer will start seal sealing. seal This is it. But in another way around, sometimes they do a prison. You get me? without a fair trial. Never mean fair trial. Yeah, I understand? Prison burden. You have convict and a remand wing. You get me? Yeah? And remand wing betamit, you will be waiting, you will be there waiting for a trial. You get me? Simply because you cannot fulfill um, the bail condition they've given you loolu mooy tax nga dem remand bon nit yi dañ dee foog ne soo nekkee remand sax you are a prisoner No, you are not yaa ngi understand te Gambia bi dañu war stop loolu yaa ngi understand naka ngaa gisee nit ku am problème mobile phone nga ne mu produce a sorty of a a a a a title deed to be built out xam ne yaayam sax mu ngee luwaas understand amul dara mom. yaa ngi understand xamuloon na dañ ko accuse um, um, um, um, he is guilty of the alle allegation they allege on him or her. You don't. So then they victimize each other. You get me? Yeah? With no proper reason and all that. And one part, I mentioned that like ne dañ leen di maltraité prison bi naka la fa mel. dunda bi baaxut lekk prison bi soo ko tegee hmm, for two hours hmm, soo ko ubbee doo ko nangoo soo ko tuuralee muusa duñ ko dee lekka baaxut baaxut dama koy wax baaxut ay maalo waaw maalo de maalo eh but prisoner yi ñoo dee tooga naka la naka nga jëlee bandi bandit bandit tipa nga jëlee bandi ina mean bakaw nga jëlee bandi base nga jëlee bandi all over the country ne raxas bool sax mu nuñ ko nga ne indi ñooñu si ñooñu nekk président nga indi ñooñu président nga ne ñooñu toogal président yi rek how would that diet be government bi ñoo wara a initiate proper chef ñu war a cook because soo tëjee nit ki nekkatul nekkatul nekkatul boppam you get me si loxo la nekka si loxo yaa ngi understand loxo boobu moo care. they man never understand. understand. I'm a political science. I do basic law. What I understand in this system is like the first and only object of governance is to protect life and citizens, not the destruction of their people and their happiness. You get me? But the government doesn't give a fuck. Sorry for my language. As I, in fact, I'm not an artist. I'm an annoyed person. to the system yaa ngi understand system boobu moo ñu victimize ñu ñëpp yaa ngi understand government bi ñoo waana toogakat yu war a tooga si biir prison bii ni yaa ngi understand because ñoom di same government bi ñoo dee wax ne prison is a rehabilitation center yaa ngi understand soo reyee nit ki naka nga koy rehabe soo reyee nit ki naka la mooy so soo infecté nit ag ak some disease inside that jail su génnee nakala mo mooy boba, boobaam nakala naka la oh, one part yaa ngi fi mention lu am solo. you were a political science student something like that. So does it mean that your educational background and move to an extent of going to the university? No, I didn't go to no college or a university. So what makes you a political science student? This is it. Dio Small Johnson, former magistrate, Mama don't fail, Mama don't fail for the, for the studies. You get me? At this college, wally, opposite Taba and Kololi. So I owe, you get me? This is it. So your band school graduated high school, senior secondary. The Madabuga exposed my status of um, education or whatsoever. What Lot of more like people are just looking me like how they see me, illiterate, vagabond. So I'm not gonna leave it to them. I just wanna maintain being an element of surprise. Funma se ne o mafagise. I system fii si Gambia bi once suñ la arrêté lan la la gaay dee def dana la yóbbu direct maytu wala dana la yóbbu feneen. depending on the crime you commit because need a crime ñoo fi which are unbailable which is one treason is an unbailable offence um, rape is unbailable offence is unbailable offence I understand murder is unbailable you get me there is no petty crime but when there were any other petty crime mun nañ la you are mandated to be bail get me but bail condition bi fii yaa ngi understand moo dee dugal ñu bari si biir prison bi and right now li ma nekk di gis nii yaa ngi understand man for me am scared man kenn gënu maa xaat yeah but I'm very scared now man maa tapet than anybody right now because maa ngi gis xale yoo xam ne ñu ngi dugg prison xamuñ luy prison yaa ngi understand xamuñ luy président so nun dee fen naan ne président dang dee jànga métier foofu dang dee jànga carpinterie dang dee jànga naka euh, nekka maçon dang dee nekka daara yaa ngi ona jànga alxuraan yëpp du dëgga fen la man Baye Moussa Seck maa ko wax fen la du dëgga du benn dëgga amut because welder welder man welding shop fa nekka A carpentry shop bufanega. Yeah, I understand. It is not being used. Yeah, I understand. Prison officer, no lende employ. Yeah, I understand. You know, as weldermans, as carpenters. So your prisoner be, your prisoner be, your meter, you sample lolo that facilities inside the jail. Yeah, I understand. Your meter, you sample lolo you are not even allowed to be out to go to that place or to walk, or to be taught of that talent so so génnee nga nga nga naka tudda nga mën a njëriñoo sa boppa dañ dee ñëw léegi-léegi human right dañ dee ñëw there was a time I was in um, the former regime yeah I said when I said Seydi was the um, um, how was how to call it was the vice president yeah yeah mu ñëw si remind bi yeah, to ask the, uh, uh, uh, the prisoners of their constraints or what they're going through or whatsoever. While now one Gambia, Adunabi Yep. This human rights is fee Prison officers, the high profile authorities, yeah, I understand. Then they lock everybody inside cells. Yeah, I understand. They screen any visitor who has to come to that um, prison. de leen dee screen pour buñ gis aw xam si liñ nekka soo dañ na dee won na rek nii leen dëkkee nii leen nekkee waaye duñ dee alaaw kenn wax yaa ngi understand because soo géegee ngay wax tëjuñ la si biir naka ngay mën a nekkee si two meter by two meter yee nga expect na nit dina la dégga si biir no waaye dama dee leen ñëw ju dee ñëw tamit duñ dee laajte ne dañ bugg a waxa président yëpp yaa ngi understand so boss yi prison prison officer yi boss yi foofu yaa ngi understand seen corruption bi yaa ngi understand loolu lañ dee muur ak mbaaja lem ti suñ geen téye suñ gémmiñ mooy lan you will not even talk you will not even have chance to talk yaa ngi understand te is very unfair nit yi seen ndey yaa yaa ngi si biti seen baay yaa si biti seen people yaa si biti naan waaw suma eh, suma doom bi oo suma broda oo suma jarbaat yaa ngi understand mu ngi si biir he is he is facing good good good good care and mu ngi jànga métier mu ngi jànga alxuraan read bible bi ñun we smoke the bible. smoke. because you ne rehab la fine hey soo buggee need rehab ah danga provide our basic needs sami Yeah, I understand this is the other side of one pack man ragaluma dara right now because I was living a fake life so right now my last life be I will live it real and only real you understand. xam naa su ma fi wàccee ku watch a ñëw nga arrest ma arrest ma. No problem, but you will tell me my charge. One pack. You're Kenyan again, is prison. Man, anyway, I was like, um, I'm out, I'm um, uh, 5th of December, last year, 5th of December, again. That time I was a trial prisoner even. I'm a TP. ok ay mos ngaa wax ne ne like ah, yow ak former yow ak current vice president Lawyer Darboe was yéen leen jëloon together. yéen moo fa fekka si wala yéen ko fekka wala yéen. moo ñu fa fekka his cell was number four. his cell was number four. convict. so ah, waxaat nga tamit sa biir kàddu ne Lawyer Ousainou ah, daf leen promise yeah promise yoo xamante ne fulfill it. Fulfill ko so yan promise la leen promise woon promise yi promise woon more. the diet will be changed and prisoners will be treated fairly and accordingly and they will be treated as human beings Lolo nag man de tey toog na xam naa ne loolu waxi la dafa caalitoon rek Wow, suma boy, be moo wàcca si lalaam bi jox Ousseynou di fanaan si yeah, I don't understand. How much are you my day? Thank you very much. Well, the again, I'm father Lu House, Silim Neconcibity. And people were fighting for him. You know, ko dee fóotal you su tilimee ñoo koy You know, la moo taxoon ngeen ko doon fóot da am yaakaar si moom yeah that is a public figure that he can change things mun naa change things te mom gis na jobi prison officer yëpp over seen corruption yep xam na ko Ousseynou Dabo xam na corruption ne prison bi yëpp lu fa dee daw xam na ko yëpp Adama hamuko xamu ko keneen ak keneen xamu ko xam na ko from from from mania to confinement xam na lu dee daw whether is normal or abnormal. Okay, one back. Um, uh, we should ask lawyer Usenu Dabo about the down law, the down law. What what does the down low mean? Down No, I want to demonstrate it so people can understand. Hold this mic. Yeah. Look down below. Compress in Benin and come near me. Remind lie lie Remind wing. Yeah, because Usenu was in remand before being convicted. Yeah, I honor before being tried. Remand na wo ne kondi await trial. Remand be comme ni la ok comme neg bi la neg bi opu Bila sa billahi wallahi taala opu ko so dangay tek lifin fi nagaruda duda hang ha fi yaa ngi understand waaye dafa am pasiron yaa ngi understand six six and hala six six plywood lañ fa dee teg nii one two three four five six xam nga bentee dafay am ron yaa ngi understand high profile cases yi eh, ak ñu fa gën a am lalbo boobu because ton by ton Yeah, I understand so JJC is like me Yeah, I understand dangay soo ñëwee dañ lie admit fine You rough eh, la time yi eh, tëdda ñu ne la fii ngay mbaaja rek lañ la dee lalal si concrete boobu noonu can you imagine sa xaj sa sa kii si kër bi danga koy may mu comfort mm-hmm. yaa ngi understand boy it's not that yaa ngi understand te government bi dañ dee finance yaa ngi understand toogaanguma parewuma si down below bi down below down below lañ wax nit yi ñoo ko dee wax dambeloo dambeloo dambeloo down below foofu doo fa am no health karankoo yaam fa matter yamfa, any kind of fever mumfa. Yeah, you understand? And there is a sickness named biri biri them days. Yeah, you understand? Sula tiye so so sula yala dimele utrek murela. You go you die straight. You understand? Yo, one part. Su fekkoon na tey am uh, an opportunity put face lawyer now. lan nga ko lan nga ko waroon fas yéene wax. Yeah, going to dama koy yeah. I will greet him with respect. I'm the sumo um, leader, no matter what. When I call him, I'm in the bro or uncle or dad. No, you dig that or Lord Dixie prison be. Deful of Adara, Agdara Hewangu Nak. Te yo, gena Ham, Dufaneka. Te yo, you are at the right position of changing this thing and this system. But now you neglect it. All you concentrating or care about is like Come on. Your head, you get me? Your well being, you get me? Send Sanja bot nga Then you nip send your board len. ndax cause mooy suma vice president hate it or love it mooy suma vice president moo ma élève moo wa a wax Adama baroni ni ne prison be nañ fa dara nañ fa dara yeah, ngi understand raining season bii nii ah prison be is oh come on So far, do get mun a nokki mu it's very nasty it's not it's not a healthy environment for nobody boy one you need ne adama. aadama uh, one back uh, wax nga tamit uh, the low literacy rate in the Gambia police force yow ni ma xamee loolu daal fii police duñ screen. loolu si understand ok Pa Nega nekk IG yaa ngi understand yow nga Neka jarbaati Pa Diouf Pa na ne yow amuloo benn kayit to be qualified to join this system waaye mbooka mbooka bi mu jël la understand mu def police. Yo, how would you execute your duties? Manpower. You don't even know your constitutional right. Ngane police nga. You claiming what you are not be, what you are not even. So Lord, da boy me. so gise push and pull be simbeda bi. I understand A police nin den de buga traité la. Ñun de de setan television de de setan beam. police la ñewé arrest daf respect approach dafa important. sinit domasa sulla bugie e lei is angry change ñu ne yaa jaamelaw Yaya Jammeh na world waaye depuis Faraman at ba Jawara be Yaya Jammeh ah there is no democracy right now sa democracy amut because Gambian bi xamuñ democracy Nakala la Gambian bi di hamé démocratie mooy government bi initiate some some some some group of people the words si dëkk bi di leen init am am am sensitized about democracy but it all takes I mean am am am am am money it all requires financial support because no ñooy ñooy use no use da nga leen war a fay duñ bàyyi seen and ñooy wóor si dëkk bi naaj bu tànga yaa understand I don't know whether the government has that project you get me but Ninkodedo, they are not utilizing it. You get me? Gambia be right now, every man is working for your pocket. So things are getting too much. After legi under age, you reckon they go to jail. Yeah, understand? Which is very bad for our future. Okay, one part, according to you, the Gambia, uh, the government is doing what they need to do. It's the people in charge or yeah, Adama Barrow cannot be roaming about. I you understand? He have ministers who he had administered to, to various sections. You get me? So no, they fail to execute send duty. Everybody want to ride a Range Rover. Everybody want to ride a new Parado. Everyone ride. Everybody want to ride. A, uh, um, how to call it? Um, um, um, um, um, Bentley or whatsoever. Just in government official cars, they make I help. ak yóbbu meer xew yaa ngi understand ak ceesekaay yaa ngi understand yeah yes dama day gis yooyu ndax amna ne duñ ma lay nag because yonente bi sax guñ ko ndik ci diga Yang mu dee ya yaa understand pi lu fi banku rek lu fi banku ñu taali ko yaa ya, understand ngeew ngeew rapa yi ni ni man duma ngeew ngeew rapa de ya, ya understand man revolutionary la rebel la rebel way duma rebel rebeli any de rebeli wax diga Yang ya ngi ya, understand pi lu opaturu. One bag. Going a legi. How old are you? Me, I'm just tari, tari one. Going to my tari one. Okay. Yes. And eh, legi, uh, ah, then what I knew, like this, uh, ah, songs, ak sa music, si yore def. Uh, one bag, lan mo la dugal si woy? ok lu ma dugal si wooye because dama toog ma feel ne yow pour wax la yow suma problème ak lu stress ak lu happen yëpp benn boppa du ko mun compartmentalize so I need the whole world to hear me out Key, key add one and one key add one and one key add soo leen go am am add ñam nga di ngeen naka la tudda de de you come with a solution to that problem but lima experience as this young age or since my, my, my, my 15 to date, man, one man cannot absorb it. Uh, one part uh, yo, what is the reason behind So we is it danga nga ñëw pour educate wala da nga pour influence. I come to educate and to you know I mean influence people. Uh, yeah. Why when it comes to the educational part, do, uh, don't you think that you are contradicting yourself? Because like most of the people, when they interpret the song, say it's like it's full of insults. That's what they think. So what what is what is your take to that? I don't insult. Which tune can you say is an insult song? Song. One of your songs. Can you name one? Do you know one? I don't know the title of the song. But, uh, but then it is, do you do? It is, uh, there is uh, a part that you say that ila singo yele something like that. Singo yele. Okay, the pum pum. Let me drop it for them. Mm, ila pum pum, ila pum pum, come freak. Hmm, hmm ake sinang sinang ake sinang sinang kem freak baby isingo yele na keje isingo yele na keje kasi na kabur what i mean by isingo yele na keje man <laughs> you don't complete a sentence to a wise we are listening to vibes cartel you hear me we are listening to alkaline i'm gonna repeat it again hmm? we are listening to uh, uh, uh, in fact we're listening to by Bible even here. You understand? We listen to Pap Chopet. Before we go further, even we just talk about the Senegambia. I oh, you understand? Nyeti, Bible is used to sing. Attack al nyeti yon la. Something like that. Mer bi nyowangut. You get what I'm saying? You know the song I'm talking about. So what do you understand on that? Why xam nga waxut ne kaay ma mooy loolu kaay ma tëddaa yow comme góor understand so you have to compartmentalize what he is saying you know Gambia we like contradicting each other that guy is doing good he is trying Yeah, I understand moom la mom moom la njëkk a

lu ko waay téye rek so is it that like mention nga people like uh, woykat ñu many uh, vibes Vybz like vibes Vybz mom moom daf dee directly. so what I what I want to know is that are ah, you da nga leen nekk di imitate wala da nga leen a compute. ñooñu maa leen gën baat man du imitate ñooñu amuñ pain ñooñu kaay leen lekk doomi kaay leen añ leen. man Gambia laa dëkk third world country Tuba bi nice law this is last world country ñun yàlla fata la ñoon bu capuloo bugguñ suñ boppa we don't embrace what we get we always kill and demise each other so this is a last world country so if you want to think like these people you go for um, um, you go backward you get me do your thing don't offend nobody and bull tooñ Yeah, i understand ok So we yi gis nañ ni xale yi dañ ko dee mun naka la gaa dee def ba cram sa woy they love me <laughs> the kids love me my energy is clean and pure, and all kids are innocent, isn't it? And the kids go to a pure one, and I'm pure. I was a bad man who is trying to put the kids on the right track, and every kid know that. Mansuma su by force public holiday more fee am. lu yeah. Lota tax nga wax loolu. ah na legend. you are a legend. yeah big time nga fi <laughs> hmm. even the other side of park nga you know only the music part of park man dama ghetto to ghetto. desensitized boys about being bad, about being an intoxicant, about being being, being an um, um, um, jailbird. Them they cause what it what what it what them they cause in it the side effect side effect bim, bim, am yaa ngi understand no they xalaatee sa boppa ak No, dee halate about your society your people the get me you living with your your your community and in fact how devastated you you you you, you feel like or isolated or lonely you feel like that you are alone loolu mo de ta boy nan, I don't care man uma ni na ni, boy nit su doxut ak am su doxut ak am am ñaari tànkaam yi ah show him how to walk ak ñaari tànkaam yi waaye bul ko joxoñ yeah we always persecute eh, eh, persecute on each other man or persecuted but me I'm not gonna allow myself to be persecuted with, by no one cause balaa ngay wax ne one pack ni, one pack ni, one pack mo laa njëkk a tegal ne nii la fa demee woon li may wax yuut si daal ñu bàyyi président bi baaxut yaa ngi understand ku foog ne au maire bu foog ne government bi ñu de dem si prison bi let them surprisingly go inside the prison ñu open prison ay yëpp nekk seen normal rest day ak rest time ñu dugga si biir prison bi you will know the fault from the direct to down to the last dumper. I one part am na ñu dee wax ne yow da nga dee tuxtaay di naan sàngara yeah before dama dee tuut taay di naan sàngara yeah dëgg la ak roor sax. lu la life boobu. yeah I was. because of the stress. it's not stress I'm feeling like I was at the climax of my youth I can do what whatsoever I want while someone in na mu yaha. so career ban ban ban ban time uh, nga realize ne loo nekk di def it's not good. yeah bi ma bu ma startee feel demise on my own life. Mange feel the yeah, mange reach to my life. Man, I have one life to live, and that life, yala that ma binda for the purpose. Either I know it or not. But let me drop that thing and try to pave a good way and a new way. One part, what is your relationship with Isa? Which Isa? Isa semester. Isa semester. How am how am been Isa semester now? I'm not Isa semester. No. Okay ay sa yima ham bare na no ham na I'm not sa vibes fm ham mm-hmm. na be na ay sa am not ay sa elizabeth ay sa facebook lañ ko dee ooye ay sa facebook link or laa nekk di wax waaw lan moo nekk seen relation si biir we don't have nothing in common we don't have even nothing hmm. mm, nit but we and right now we are not in good time and I don't regret it like, all I regret is knowing him, knowing her. That's all. Why do you regret that? What happened? Because what I think she is, this how smart I think she, she is, she is not that smart. What shows you that she is not smart? Yeah, because I went to Dreams, I, I went to Dreams, uh, uh, Dreams Luxurious Club a day. You know what I mean? I just feel like, yo, there's someone who is missing. You get me? And I really like her, like a sister and a mother. You get me? We have a lot. You get me? we don't know each other for more than two months but diggante bu gàtta bu ndaw buñ xamante rek yaa ngi understand it, seems like we have a bond it seems like we have something in common it seems like we sharing the same pain ma miss la ma gis la rek ma ñàppi sa kaw ne oh my sis is around and all telling me yo let, let, let, let me go let me don't hug me don't hug me say whoa Give me my gangster image want to come out, but I say let me swallow my pride. She's a woman, and my mother is a woman, and I have a sister, and I have a daughter too. So I just want to know what's up. Tell her, I said, what's up? She tell me, I'm a dig anything, and I understand. Eh, yeah, yeah, I'm, I'm young and eh, man my gal said, man my mommy. Then xees sa mbir ma My whole case, xool bi bugg ak bon bugg my Mabuga Wochosuma Holby. Why am I feeling like she don't deserve it? She's just an attention seeker. Man no man obeze mo man gonna her. Man lolo just suma problem there. Man just suma post la ame. Jang habu ma buga boy lai handle. Why it's not my style. Then you understand? Yeah. After that talk, see see Alex, my talks um sunshine. Yeah. Maktaba banner, TV. I don't know whether they are paparazzi or whatsoever. Eh, they, anyway, ñu to tudda um, to tudda hot issue How ma ndax dégg ngeen seen hot issue Sénégal bi la gars yi day nekk lu xew rek tarab dañ ko dee xam man surprise daa ñëw di ma laaj mbir yooyu lii ma lii dreams They ma be were our dreams and you have a be with us a Facebook and all that blah blah boom boom I tell them yo. I don't have nothing with Isa Facebook. I we just misunderstood each other. He he has a like, and Ndiko Jigin, Lamanduma Jigin. But I've warned her. And this is a big time warning to her again. If she tries it again, I'm gonna be all out with no respect on her. But I know she is clever. She will not come like that. Because she know me and which type of man I am. And she's very clever. But doesn't mean I hate you, Isa. I don't. i still young for your friendship you hear me because yeah nitula he, nitula dabale do ba wako yeah i understand i was in the game one day mo fe kama mona man critics here if you don't ignore them yeah, you will just destroy yourself and your career fayo mako he has no she has no benefit out of it but the advice was my, oh, my future isn't it so thumbs up Isa for that but Lunity, they want to suma chepera. Agree, It's all lie. Ah, ah, am naa doom bu jigéen Fatima am saakari yàlla ñuul kuk ni man boy, but you weex yoo xam ne kii like it's <laughs> my bi my life. so da nga am I'm amoon jabar for seven years. anam. Ah, tàggoo nañ. tàggoo ngeen. lu waral lu ñaaw. yee mosoon lu waral lu lu rafet a waral lu ñaaw this is a matrimonial issue su neexee doo day wax su naxaree nag waruloo toog di ko wax waaye wi suma suma sëy pour sëy tey ëllëg divorce and all that non is how it is. mbokk yi ñu ko gisandoor one pack tey wax nañ fi loo xamante nii ñi ñëpp joomi neen si ñi ñëpp waaru neen si e kii nag mooy one pack moom leen leen indiloon tey fii si mm. Gambian Talents mm. Forum coow bu yàlla rool one pack léegi dama laa bàyyi nga tàggatoo eh, maa ngi tàggatoo gi booy maa yéen mm. bii xay la hello bi ñu waangut sagaatuma a bàyyi gi yaa ngi understand bii to be continued

ni yep. one maa ngi say thank you to Walter who gave me shelter right now Walter dembo he gave me biri kaama seti dembo santang bo jangi yaa ngi understand maa shout out to Oskoli tamit the same maa shout out to Sirif Bojang Standard maa shout out shout out to Ndey Ndeye Musu, yeah? You know Ndeye Musu, former manager of Abu Anfafa. Get me, I'm, I'm, sorry, I'm giving them shout out. And Pa man too, shout out to you, you my man. I know you. Small wire. One bag, don't you wear, but you're them. Nothing near to No, don't fuck. Time be small hole, bangy bon. Small hole, bangy over bon. The mamuna one, The mamuna way. So you whole be subone, do we? The mamuna way, small whole be subone. because Gambia bi dañ ma dee over just stress things have to be straight xam nga xam nga ne right now sax police yi ni ñooy def si kaw street bi kuulut tagato maa yéen this is an fresh issue lu have, police ko soo jógee Sukuta balaa ngay am dengan ngay jot tipa garage di nga spend three hours si yoon bi foo laaxa di fa gis check point foo laaxa fa gis man dama rebel rebel a réel yu ñooy ut Nippon Gate mounts your own checkpoint for your pocket. You life a salary. Yeah, I understand. This is a this is a um, um, station Munla sta um, um, um, um, uh, um, post to. Oh, sunna mount alfi nga mount fofu yeb. Why da ngay gis ne di nga 157 checkpoints, 2000 checkpoints si road bala ngay aga drug squad dinañ taxaw police dinañ taxaw immigration dinañ taxaw yaa xam bokkul xaraam sax dinañ taxaw man mënumaa nàndal yi yaa ngi understand police yi jigéen ñi nañ bàyyi tali gi yaa ngi understand police yi jigéen ñi nañ bàyyi tali gi te kuy dugal si police bi nañ admin officer yi ne da ngeen war a door di leen screen because ñu ngi yaaxa seen job de waaw You ita an talk at the diplomacy office as a police officer they are yi understand hmm? sa dumper or sa recruit or or sa pc or sa sergeant jangut hamut li moy def sa mu ngi uniform Limo moo in the reyante The tie de dëkk bi reyante bi bari na de look koos loolu yëpp police in all. Then what a def dara nag IGP bi is going to the IG IG I'm giving you this complaint get me we have to do something about this checkpoint. This abo- uh, uh, checkpoints in abundance. Every every bend you bend, you will find checkpoints there. You get me? Tenyonyo, send on checkpoint in the amount. I've been in the system. Yeah, I understand, and I know the system. You get me? Send on checkpoint in the amount. Yeah, I understand. the from no station. yaa ngi understand seen on cons lañ dee teg or seen own boards yaa ngi understand licence and insurance di nga génnee licence and insurance sa ñuy wër sa moto bi birégal taaral liwi naan yëpp money léegi-léegi dama dee nekk moto waru laajal driver bi licence ak insurance am is better yaa ngi koy wax ne ataya penkoo lii loolu is a disrespect man te dëkk bi ñu ñoo ko moom suñ ko dëggarut jagarut booy du du dem booy waaye police yi tamit soonal nañ ñu de xam naa ne naa nekk taget nag yee waaye welcome su ma offendut nag ah su ma bakken mooy moo fay des ku ma bugg a jaay advantage si li may dëgg bi may wax nii welcome di ngeen xam ne fii du ngeen du ngeen nekk fii démocratie la démocratie la nag wax freedom of speech but freedom of speech tamit going out to the layman waxuma police de suñ ne freedom of speech Gambia ak people bi waxuñ nga taxaw si mbeeda tuxtaay waxuñ nga taxaw saaga Adama Barrow ndey nga taxaw nga saaga lawyer dabo. waxuñ nga taxaw nga saaga policeman yaa ngi understand dañ ne nga wax dëgga si kaw yoon ak luy xew current issue lañ wax yaa understand su nguur gi defut lu baax nga taxaw wax ko mu doon digga si kaw kanami ñëpp waaw loolu lañ wax freedom of speech waaye du police rooma di patrol patrol nga koy yu Gambia ok waaw lii laa am pour wax gaa yi nag soo waaye benn police yi nekk si checkpoint yi war nañ see dara point hana rebe la réel xanaa bii woo zone la ah fi du woo zone sàcc baa bari tamit aha wal paak am na ñu nekk di teg ñu ne yow olof nga waaye danga nga dee raap si soose. waaw olof laa olof laa si ndey olof si baay waaye tribaluma mhm. yaa ngi understand the majority is soose te ñu dee def ñaaw tef yëpp yi yëpp soose lañ soo foog ma enlight soose yi te man am proud to be man soose laa bugg a nekk sax ñu gën maa dégg a booye su ma soose bi sa koregut all of la bai musa seka la tuda eke e ndogali yala o chobu yala rof basa nyanga ya mango ya you understand suma bai tuda bai seka bai ser seka yeah all of pir la duma laha laha all of jërëjëf waaw jërëjëf naga fireman fàttewuma la yaa ngi si biir yeah wala tamit ñu bëri ñu ngi laa di la seetaan nga jox leen thanks xam naa nag borom baax ngeen ak lu baax ngeen bugg a dégg ak dégga ngeen dégga rek ngeen bugg a dégg waaye man next man de sa genu ma appetite appetite man la appetite ya ngi understand puis lu fi song comme gars ah, ah, ah, ah non one pack ñu ne uh, what what do what what what do you think about ST Brikama boy. ST man thumbs up man. ST is a guy, he is doing good, and everybody has to be, you know, I mean, happy with him and what he is doing. And he's a dude before. ba alasim man he was there for me dama daan broke sax mu may may xaalis STB nii man man man du ma dee fen yaa ngi understand ku la defal lu baax ah soo naka la continue jekkalil foofu ku def ku la defal lu baax naka. nga fay ko lu baax. thank you very much. waa eh, kii one part eh, war nañu fi tamit ñu ne sa song bi. ni ni ni mu ni mu. ni mu buute sunkan. waaw li ma min loolu mooy su fekkee ne day nga oo puub nga xeeñal xam nga puub dafay xeeñ yeah waaye to put it in the in a in a more basic form is like yaa ngi understand su fekkee ne defkat nga bàyyil wax gi nga def yaa ngi understand bal yaha yahate gi ngay jagar I understand ni mu buuti sunkang koto ke ni mu buuti sunkang gi bari na fi koto yu bari ñu fi fake lañ yaa ngi understand jomba ñaaw samba alar yaa ngi understand ala balen de gërëm sa yaay yaa ngi soona sadaka yaa ngi soona yow yàlla nga wërsëgal to be the breadwinner of the family pour nga look after ñooñu nga nga doon loo leen nit ak fu ñu war a jaar nga ne noo yaa nga woon daal one pack dafa deger booba du ko jëndal moto one pack dafa dëgër booba du ko may daala one pack du ma one pack su jaayee taayaam nag nga ne nga bugg a wax si one pack reyante ñëwut sista yi tamit nekk Europe di may góor yi ay kayit xam di dinañ regleel kayit seen raka yaa ngi soona fii duñ leen duñ leen duñ leen dugal si buubu duñ leen dugal si ceen yaa ngi understand su ñëwee fii àdduna bi yëpp won na ne hey yow mi nga sa sista bi millionnaire la di mag mag bu góor boobu doon millionnaire la di yaa ngi dee ak kii fecc na si one pack nga dee ñëwee xaaraani añ. ah one pack beneen na ngi mu ne how did kili kili contest bi nag classes naawa naawa Gambia ne. nañ embrace suñ DJ yu fi nekka cause fii nuñ fi invest si Gambian Gambia la mooy des waaye Gambian bi bugut Gambian gan bi la teg ci kaw boppa boppi Gambian gi kili kili contest bi was twenty five thousand dollars the winner ñu dem Busumbala yaa ngi xam nga ñaata lañ ñu jox three three thousand dollars Where is the twenty-five thousand dollars? The people pay their money. I understand. I'm not the I'm Elder Sound System. Moy Java. I'm not the ANG. Moy DJ Michelle Hilltop. I'm not with more different, different, different DJs. Yep, Gambian land. And they do real thing. Prices more in the lasses. Why need they get it twisted? Ten now and go more clear. yow ku la indi fii nga juu kooku di nga juu di nga spare nit non Pisces Moustapha Manjang Tafa Manjang mooy one tribe force one tribe su fekkee ne moo organise kilib kilib bi dafay ñëw real it will be very real yaa ngi understand waaye laasis ak bulldog jawara bulldog jawara mooy paa jawara bi mu dee àndal ne promoter so promoter boobu noonu bulldog jawara laa ko tuddee laasis one force bi moom corrupt force laa leen tuddee corrupt force Gambia stop dealing with corrupt force take your own DJs and make your shows happen you ñii they are just extortionists dañ leen dee fenal si media yeeg yooyu man na kenn du ma use de man cega laa benn mbéj nga may mbéj su ma bët ubbeeku loolu tam ma eewu si suba teel soosu noonu ma daaxa leen officially So we order our other DJ from Germany, Air Force then to that. It became very successful in Birikama. Suma boy, suma boy, be my one no Walter. Walter, ag, ag, uncle and Bricks, am Bricks, Bricks boy Bojang. Right now, my president i am Gambia uh, Birikama promotion um, um, um, um, body. Be. He is the president of uh, Birikama promotion. Hmm? léegi ñun ñoo ñooñu ñoo take over ñooñu sax dañ mer ñu take over everything yaa ngi understand we proceed with it so we wanna do the final round at Bakau Happy Corner but heart feeling baa ngee daw benn tey I don't know where the heat is coming but we just need sponsors you get me to hit what this kili kili. And you know what do you think about the government? Man, the government, oh come on, the government is slow in my eye because li ñu saaku maalo baa ngi nii mu ngee gën a seer ndax te seen time campagne wax nañ fii saaku maalo dina dem ba five hundred ñëpp a ko fi dégga bu ma jaay journaliste dégga nga ko yow sax ñëpp ko fi dégga yaa ngi understand ni nañ am light bu correct te wax dëgga wax dëgga neexul nag waaja bu mu fi nekkoon light light bi nim ñooy disrespecté nii light bi du dee disrespecté noonu may wax ñu ne dañ am gaal si biir ga gaali courant si biir ne ay géej gi loo xam ne man musuma koy gis waaye su fekkee ne ñu ngi am gaali courant yow every minute on and off on and off lii lan la nii doo leen jënd a générateur yu ees because woon ñu ne Babili Mansa man duma ko dee ooyee Babili Mansa Babili gangsta laa ko dee ooyee yaa ngi understand ñu ne nekkul di def fii dara waaw du ñu teg stress ñu génnee ko teg fa keneen you I understand. Say what the guy there, y'all, Hmm? Look, I'm in bilateral relationship which is healthy with the um, um, diaspora or the West. You get me? Why not you, boy, you take a loan of new generators or new new new new machines which can, you know I mean, generate our electricity. Fee can then charge to for two days, can then charge to Gen two days. You understand? ah ken ken kenn toog kenn lekk ak tut maalo bu buñ because woon suñ reelee jeexu dañ ko de roof si fridge boo seet ñu tàngal ko ndax du waaye laaj baa ngi korop mu ngi korop mu ngi dem woos saaku maalo baa ngi gën a is wrong people are paying their tax xam nga fi may waxee ni? ah te time election bi amna na ñu fi dee ana ñoom solo sandeng du dee die for free dañ dee pour changes waaye ñu dee rek dara changeut fii government bi daa da ngeen war a def dara booy fii lu ëpp a tuuru ah te yan nañu yàlla musal si séréli yoon civil war bi nag waaw maa war nag tribalism baa ngi ëpp tamit government bi is falling their hand gis na police yeeg para yi ñu puus leen war a teg community policing dafa important dafa war a am yaa ngi understand ñuy dugga dugga kër to kër di sensitize people not to be tribal yaa ngi understand balaa Jawara Faraman Singate la woon taymaam jee na ñu àndaa Jawara Jawara taymaam jee ñu àndaa Yaya Jammeh Yaya Jammeh taymaam jee ñu àndaa Barrow yaa ngi understand Barrow tamit taymaam sus jeexee xëj na di ngeen àndaa man it can be yeah o oh, keneen ak keneen right now right now But you don't look hell right now, you don't have one. One pack. Uh, last election, but I'm vote. Man, I'm hmm. not vote can. didn't vote dama koy wasi kaw adama ah, baro la vote votal coalition bi ñom nga vote yes because of lu tax ma vote sax Ling ling promise gambia bi everything would be transparent and everything would be like normal and people will be treated fairly. Anyway, my biggest problem is the prisons. Prison be the almost more problem, man. Yeah. Yeah. The lawyer dabo mo wara wa guy lu na kase prison be. Yeah, a kenen a kenen nim analon vovo. Why nim jina rek am tuti jama di noki fresh air rek fata news na kon sibir. Huh? Is that nice little fair na? God do no no. Mana suma boy mol. Big fat cool there. Uh, one fat cool down. It's too much. Cool down. You didn't open why. <laughs> Cool down. My one you lean what I want you in the man some music Be with everybody F. Watch my next music. One pack. Ganya is going to well in uh, Nimu Nimu Booty. Sungkambi. Yeah. waaye yow bu leen ma indi good mood. maa ngi bad mood. wéyal eh, rek non pléyal leen ko. wéyal rek pour gars yi mun a ree. parce que xam nañ fi mu toll nii One Pac moo fi toog te One Pac seen star la. it goes like this ah, koto kete nim fe man boy la ri rob for hard feeling. ne muna fo ɲɛfɔ ne ne kɔlɛ oke dane kodo la ban fɔ dun fɛn o my brother ni mu buti sunkan koto kɛ ni mu buti sunkan bonkuntɔ ni mu buuti sunkan ini ni mili bɛ y'a hɔsol inata ye dol makoy say mante makoy iko inyata no ndala li vetano na converso na air maxo na versace boy na jista ambala nkopta dawo da e ben chodi la e ben sellout la ika e men da muy jawolde heart feeling be fa ni mu buti sunkan e my sister ñu dem ci sister yi tamit momo yi ko abe fotola ikoy bang ikoy tamu deri yankelde ido be pata pata ring i ibe i be ke sola kayito la europe kono i be sola kayito la europe kono i be sola kayito la europe kono mo mo nata semestre la ja a b'a fɔ he bari itara si tɛbɛ kuuli he bari ita bama bɛ kuuli waaye suwon ten jɔma ñaaw waaye wolof yi linde wa tana kati daala si carax la moy muje my sister bon kunto ni mu buuti sunkan wa people just check it if you wanna have one go to youtube straight and the new banger is out which is jumbo the you know I'm um, okay, boobu moo nekkoon One Pac moom leen amoon fii tey si Gambian Talents forum bi duñ def dara nag dañu leen a daje ba beneen yoon ah tàggatoo woon neen waaye One Pac moom ko tàggatoo ma sa right now léegi laa war tàggatoo léegi. <laughs> léegi léegi maa ngi wax booy yi nag. ye Brufut Garden taf bursu bii bi bundung gi exclusive seen manager bi Pa Aliou Mbodj salis sol yaa ngi understand waaye walta daal jërëjëf paako boobu noonu duma ko mun a faate ba ma dee ak suma benn yaay gi booy billaahi alimatu bu jur ba bu jur baay Musa Seka bu jur gaynde gi maa ngóog ndogali yàlla ndogali yàlla ala la will maa ngóog maa ñii mooy loolu waaye nañ waxal ma ne ñii nañ ma bàyyil ST kooku disturbut kenn waaw ah mbokk yi comme moo nekkoon woon Pape fii si biir Gambian bi ñu ne naa dig dox daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf. to continued waxal loolu to be continued. loolu laa ñu ne naa dig dox daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf. bii du bàyyi.